am yow yow mm-hmm. dafa mel ni pour cette sélection là. Mm-hmm. dafa mel da nga ciy xaw di ticket je sais pas mais non c'est-à-dire euh, comme ni nga ci amee gis-gis. Mm-hmm. man noonu laa ci amee gis-gis. gis bi la gis-gis bi ma am nag waroo naag sa bos. ak ñi nga xam ne oh, très bien euh, premièrement il faut que ñu euh, contextualiser Amara. c'est-à-dire. très bien Amara. c'est une pépite et bu ñu delloo ginnaaw ñett ñeenti at amoon nañ bu xaw a mel ni moom muy Samba Diallo mais gestion wu carrière wu Samba moo yóbbu Samba Diallo fi mu toll nii. même Pape Ndiaye aussi. Pape Ndiaye Souaré aussi. alors euh, il ans. voire 16 ans il s'approche de ans il joue avec les gamins de son il joue avec les gamins de son âge il a eu la chance concours de circonstances ñu def ñaari équipe nationale mu dem football yi éliminatoire coupe d'Afrique dernier match def lam fa waroon def cerise sur le gâteau loobam boobu bu réussir woon c'était fini mais man jàpp naa ne waruñu brûler les états deuxièmement si si doucement doucement doucement lui apprendre la vie de groupe il est en U17 pourquoi pas il passe pas par les l'antichambre U23 ou bien U20 ou bien l'équipe nationale locale comme il est toujours dans le local qu'il soit tête de lance de cette équipe là. est-ce que le football est à ce niveau pourquoi ne fait pas confiance à nos pépites pourquoi on les apprend pas non non non non il s'agit pas de lancer nos pépites dans la meute comme ça. Ah, ah, il y a beaucoup de paramètres qui jouent dans la carrière d'un sportif. uh surtout surtout d'un talent pareil. il doit être protégé fi may daaneele nag mooy interpellation bi nga njëkkee sànq pourquoi du ñu wax ci Amara lu bari yéen yéen a war a wax ci Amara yéen journaliste yi. ñu ngi ciy def suñu non alors nous allons nous allons nous allons nous